dama naan c'est la magie des réseaux sociaux parce que ci réseaux sociaux yi la ñu quand même ba yalla def sey juddu ci donc voilà sur Instagram. <laughs> déjà man rumeur boobu mosuma déranger parce que ci ku ñuy roy mi sallallahu alayhi wa sallam soxnaam moko moko moo non donc pour moi, loolu warul déranger en plus je suis pas plus âgée que lui peut-être euh, dama xaw a pas ba boo ma gisee nga teg ma mag mais si je suis face to face je nga que mën nañ wax ne xale la <laughs>